ba tey ci seen scandale du jour de ce 6 juin 2024 ñu déglu ci vidéo bi ñëwaat. dafa am opposant bu farouche buy daw ci réseau yi opposant boobu dina faat ñëpp. dana daan ñëpp ci classe politique. mooy vaar bi. ah vaar nga bëgg rey ñëpp. opposant boobu. kuy dee vaar lay rey moom. kooku ku yebul bàyyi ko xel ci làmb ji dina am dina def ay ravage Ndeye Fatou ma doon les cet opposant farouche là occupe le terrain Ndeye Fatou ma doon les te kooku kenn rek lay dal Ndeye Fatou ma doon les kay pour mu gën a féex sa xol mhm. mais dama la bëgg a wax ne la euh, am na opposant boo xamante ne moo tax opposant yu bëri toog seen kër waaw mu ngi leen di liggéeyal liggéey mooy fi mu toll nii VAR mi ngi liggéey liggéey bi mhm. parce que lu waay waxoon daaw na si delluwaat du loolu la gars yi wax souvent dañu ñëwee lépp mu ngi noonu plateau boobu nekk na plateau boo xamante ne ñii dañoo neex excusez-moi euh, euh, euh, Var Var de moom wax dëgg fa yàlla Sonko ñu ko proposé woon Sonko moo proposé woon Var xaw ma na kan la ñuy Var Sonko ñu proposé woon Var Sonko ñu ngi koy Var dëgg la de ndax opposition bi dañoo am seen arme nee na ñoom xuloowuñu xeexuñu xataraayuñu vaar tey Sonko génn na wax ci économie bi ñu génne sonk vidéo sonk wax na ci feebar yi génne vidéo sonk sonk wax na ci jigéen ñi ñu génne vidéo wax na ci ministre yi ñu génnee vidéo waaye mën mën daal mën mën mën mën mën Sonko mën daal ah yàlla baax na euh, pour l'instant mooy opposant Ousmane Sonko xaw ma nag bu ci demee ba ci kanam

xaw kan la de man je pose la question ban opposant moy moy moy ñëw yeewu ni ni ni ni ni nii xam day xaar ba 2 ans 3 ans mais pour l'instant VAR moy nek euh, opposant bi VAR VAR ñëpp VAR la ñuy utiliser